def nañ fi benn point de presse bi ñuy waajee dem màggal point de presse boobu da doon wane ñun suñu taxawaay ci élection yi di ñëw ndax élection dafa am ay jéego def nañ suñu wargoor ci tànk yooyu waroon def fi ñuy jëm ci élection yi mooy investiture mooy maire yi ak conseil mais dégg ngeen bu yàggul ay responsable ci seen droit la aussi ñuy déclarer seen candidature ci mairie bi ak ci commune yi ñun ñu gis ni bi ñu toogee ba gis suñu bopp évaluer ñu ne ah mais ñun de suñu biir am na maire bu bokk ci cadre concertation bi maire boobu mooy Talla la ce maire boobu moo fi nekkoon 2000 depuis 2014 maire de la ville de Thiès ñu ne nag. Ah, nañ waxtaanee comme ñëpp ñu waxtaanee investiture nañ waxtaanee suñu candidat est-ce que dañ koy maintenir walla taala moo ñëwal boppam fii démb biir cadre bi ni moom candidat la pour continuer am ci mairie Thiès mu wax ñu ko ñun ñii wax ko pare génn ni man dama leen bañ a responsable fi toogoon toogal fii mandat

def fi un terrain même à dimension internationale fii ak weer wi dee dafa naan décembre hôpital pour mag ñi fii si yoonu Mbour ñu ngi koy tabax. jigéen ñi ñu leen tabaxale foyer des femmes fu ñu mën a réunir ñoom ñëpp groupement yëpp di waxtaane seen activité ak xale yi ñu ne day loolu lu ñu teg suñu bët la kon nag jaadu na ñun bu ñu amee maire bu mel noonu mu ne suñu biir ñun kat ñoo war a jëkk a jug. pour ni kii kat nañ ko jàppale candidature am porter ko construire ko. lim la ni kii mooy suñu candidat. ñu ne yeneen commune yi nag parce que ville bi rek nekku fi fii si dëkk bi am na commune est am na commune nord am na commune ouest démb lañu ñu commencé recenser candidat yi foofu ñu nekk su ñun la ñu wax de ci cadre concertation bu dee am ñoo xam ne ñoo bëgg nekk candidat. si yooyu commune nañu yëglu ci tey jox ko benn commission ñu dajale kàndidaa yooyu woote réunion waxtaane candidat yooyu génn suñu taxawaay si candidature yooyu fësal ko nañu fësal bu taala